ngi noonu Fatou Kiné dafa mel ni euh, mbas mi tàmbali na mujj ñu naan pandémie léegi nee nañu jóge nañ pandémie pandémie ñi ngi endémie situation bi ni mu koy waxee dafa débordé tey nag nga seeti ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàll wi saa yi nu waxee ñu dégg leen ba noppi sax bëri lu luñ leen di gis tey dafa mel ni Fatou Kiné loolu xay lay naan mësta am moom nga def ma ngoog euh, ma ngoog xam nga jamono ji ak nu mu mel sax xëy na léeg-léeg di jug di dem di dem ak a dikk mhm. lool luñ ko gën a mën a wàññ mu gën a am solo ci jamono ji moo tax ñi nga xamante ne Faty jël naa leen ci reportage bi yàlla def na mhm. par téléphone laa leen jël mhm. euh, ku ci mel ni professeur Koumba Kane Touré xam nga ko moom virologue boobu nga xamante ne jamono yi moom la ñu dénk université bu bu Kaolack euh, jël naa ko mu indi gis-gisam ci loolu waaye tamit seeti naa doyen Assane Touré euh, kooku boo premier journaliste euh, spécialisé parmi les premiers spécialisé en santé euh, publique mhm. en Afrique mhm. moom aussi xam nga euh, fekkee na pandémie yu bari mhm. moom it gis-gisam dafay am solo moom lañ dem seeti Fatou très bien ñu dem seetaani élément bi ci ki na dem def dellusiwaat léegi léegi ci plateau info du matin mbas mi dëkk dëgg la def am na fi ndey am fi bàjjan am sax ñu naan ma ngay laaj nationalité taxul nag ñu bari ci askan wi euh, dellu ak euh, gannaaw ndax am na ñu ni feebar bi ba nëga ni dana koy mbubboo nit ñaa ngaa gën di faatu li gën a metti mooy mag ñi nga xamante ni dañoo am jàngoro ji ne ci biir kër yi ñu téye leen fa balaa ñu leen di yóbbu kër docteur fekk ne feebar bi sori na lool ca ñoom. nit ñi tere nañ leen ndaje yi mais ba léegi nit ñaa ngi continuer di dem ci ndaje yi te loolu noonu day yokk lawaayu feebar bi e, gis nga fi mu nekk nii ñu ngi lay wax sax naan la ay am na ay université yoo xamante ni fi mu nekk mbas mi dugg na fa te da ngay xool ndongo yi ni ñu bëree ak li ñu nekk ci université yi bu fa mbas mi duggee moom dina gën a métti li nga xam ne moom lañ am nit ñi ñu ngi kiy def seen kentalaay kàttan ci système bi naam doyul il faut ñu yokk ko mais nit ñi tamit nit ñi nañu bàyyi di denc maladie ci biir kër yi di yóbbu maladie ci benn stade boo xamante ne bii stade bu bu bu bu yéex lay doon. te wàllante bi li koy indi facteur yëpp mu ngi fi daje muy transport en muy xew yi muy jàkka yi ñuy daje muy fépp foo xam ne rek doomi aadama yi dañ fay daje cas communautaire war na fa mën a judd. ca njëlbeen ba tey sàmm leen geste barrière yi moom la ñuy wax mu dem sax ba doon ab way ci gémminu kilifa yi teewul feebar bi ma ngay dox di dem dem ba sampu tey boo xoolee réew mépp daj na gox it naka noonu naka la ñu war a taxawee dëgg waay ngir wàññi cas communautaire yi dagg ko sax la ñuy wax mu bañ a amati. su gënee continuer dina laatikaafal secteur yu bare ci réew mi rawatina économie bi rawatina éducation bi rawatina santé bi kon euh, benn gouvernement bi ne jël mesure ak matuwaay yi war te bañ ci yox yox yi ñaar nit ñi kenn ku ci ne na xam ni moom ci boppam moo mën a sauver askanam sauver xeetam sauver njabootam bu loolu weesoo li nga xam ni mooy mesure yi ñu jëloon ci transport yi mesure yi ñu jëloon ci yenn gox yi yenn région yi ci couvre-feu yi bu nañu jël mesure yi te bañ di seet ndax diw dina kontaan wala du kontaan. bu loolu weesoo beneen taxawaay ci kàngam yi muy gëstu bi fent bi. science dafay dox te Afrique dabeegul ci mbir yu bari. réew gëstu moo ko yor développement gëstu moo ko yor santé gëstu moo ko yor agriculture gëstu moo ko yor lépp loo gis pour jëmale réew kanam gëstu moo kon gëstu dañ ko war a jox gëdd bu baax a baax gëstukat yi dañu war a booloo àndandoo di xàcceendoo di dóorandoo laboratoire yi nga xam ne ñoo nekk ci université yi ñu dooleel leen ak centre de recherche yi ñu dooleel leen. aywa Fatou ne dem ñu jaajëfal bu baax a baax sunu doyen ak yéen naka noon itam docteur Koumba Kane Touré virologue bu xarañ euh, nekk fierté wu Sénégal ak dendob Afrique bi yëpp ki ne sama laaj bi mooy sànq li ma la junjoon euh, bu léeg-léeg dañ doon wax naan pandémie léegi nag ñu ngi ci endémie situation endémique euh, loolu mënees na ko wax bu ñu ndax mënees na ko wax bu ñu xoolee jamono ji li nuy dund ndax mbas mi daanaka daj na Sénégal wërngal këpp ba noppi itam lañ doon am léegi ñu comptabiliser fu mel ni Kaolack mi ngi ci mhm. cas ak ñeneen ak ñeneen. ma euh, li nga wax dëgg la mën nañ wax ni fi mu ne nii. Mhm. Euh, ci situation endémique la ñu nekk. Mhm. parce que tout simplement feebar bi dafa dafa dafa maanaam dafa dëkk. dafa dëkk te boo xoolee yàgg na. mois de mars ba tey. donc pandémie bu demee ba tollu fenn fi. yàgg ci dëkk. di def ay giraawaali mën nañu wax ni fi mu ne nii ñu ngi ci euh, euh, situation endémique mm-hmm. li koy justifier wax naa ko léegi mooy li nga xamante ne nii moom mooy tolluwaayu jàngoro ji waaye tamit beneen mbir mm-hmm. ni ñu gisee ni jàngoro ji euh, fi mu ne nii law na ko ci biir askan bi niñ mm-hmm. naan tas na dafa tas wax nga ko tey boo xoolee diiwaan ci Sénégal yëpp ñoom ñoo ci jote gox yi naka noonu tey boo xoolee dëkk ba gënoon sori ci Sénégal fin fond du Sénégal daawuñ fa sax tudd kaa léegi dem na ba nga xamante ne mbas mi nee na fa saraax loolu yëpp nekk loo xamante ne tey mën nañu sukkandiku ci ne am nañu ay jafe-jafe am nañu ay jafe-jafe sax fi ne nii pour vraiment mën a tiye feebar bi mhm. ndax bu ñu xoolee formule actuelle bi nga xamante ni moom la kilifa yi di dérouler boobu ba léegi mhm. tey mën nañu wax ni jafe-jafe am na pour que ñu mën a freiner mhm. feebar bi mais je pense que ci kaw loolu tamit y toujours des efforts à ndax mënul ñàkk dëgg la explosion cas communautaire yi euh, bari na waaye li gën a metti tamit tey ci cas communautaire yooyu mënuñu remonter source bi xam nga tey boo xoolee kaa communautaire benn kaa communautaire faati mën naa wàll juróom-benn juróom-benn jàpp fukki doomu aadama. Mhm. mais tey kaa communautaire boobu kan moo ko wàll. kenn xam nga ko cas communautaire boobu kan la wàll. Mhm. donc mënuñu remonter source bi donc loolu dafay wane ni fi ne nii euh, bu ñu moytuwul c'est regrettable dinañ jëm ci ay chiffres yoo xamante ni mën naa gën a exploser ñaanuñu ko yàlla mm-hmm. mais nag yëf yi moo tëddee noonu te te xool nañu xool ba gis ni ay jafe am na waaye tamit euh, dañuy daal di ñaawlu tuuti aussi euh, laxisme bi nga xamante ni xëy na léeg dañ koy nemmeeku mm-hmm. bu ñu nee law na nañu xool jàpp ne mën naa lawee fu ne tey boo bëggee dem kër docteur Faty seetlu nga lenn doo fa dugg te joxuñu la nga raxas say loxo ba mu set boo taxul masque doo dugg ma ngoog très bien mm-hmm. boo laalul gel doo dugg te est-ce que booy dugg booy génn même dispositif boobu yaa ngi koy constaté mm-hmm. noonoo non booy génn dañ lay bàyyi rek nga dem mm-hmm. yow booy ñëw ñi ngi jéem a la ñi ngi jéem a sécuriser ba yow doo dugal feebar bi ci biir mm-hmm. mais booy génn est-ce que ñi sécuriser nañu la yow moomu ndax jëlee woo ko ci biir ndax mën nga ko faa bañ a mën nga ko faa bañ a yóbbu waaye mën nga ko faa jëlee dëgg la man je pense que aussi hôpitaux yi nañu xoolaat nekkin wi mm-hmm. nañu xoolaat nekkin wi bu baax a baax mm-hmm. ndax loolu yëpp dafay wane ni vraiment am na ñu ay jafe-jafe euh, ci yu baree bari euh, lu ci mel ni wàll woowu wax nañ ko feebar bi fi mu ne nii tas na euh, nee nañ ni ma ko waxee sànq ci sama ndoxteel li am na fi ndey am na fi bàjjan léegi sax nationalité lay laaj comme ñu koy waxee ni ko ñenn ñi di waxee xale yi nee nañ gan gi dafa wow bët wow na gan bu bët moom uh-huh. munoo ko wax lu ko saf dara gan bu yeewi bay dugg sa kër nga dàq ko mu toog ba pare riir du toog ba noppi nag di woo ay xaritam ak i mbokkam moom la coronavirus def <laughs> yaa dem ba cas yi explosé sax euh, mais laaj bi sax mooy est-ce que yegguñu foofu parce que ñu bari dañuy interroger wu naan chiffres yi ñuy joxe. est-ce que mm. est-ce que mooy situation réelle bi wala ab échantillon kese la. Mm. échantillon man man dama ko jàppee ni échantillon xam nga lu tax ci mm. sama jàngat la man sama gis-gis ak gis-gis ñenn ci borom xam-xam yi mm-hmm. ndax tey boo dee xool boo dee def rek benn lecture euh, Cheikh Tidiane Diaw mm-hmm. chiffre exact est-ce que mën nga ko am déedéet jundoon nañ ko ci ci ci ci ci ci suñu euh, santé bi weesu selon échantillon yi ñuy am di ci def ay test ci la ñuy génne yooyu mais dafa am ay paramètres yu nekk à côté yu ñuy fa yu faral di fàtte xam nga paramètres yooyu yan la bokk na ci Fati est-ce que gis nga ren doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ci 2020 waxuma 2021 sax laay laay laay kii maa ngi jiw mais at mi ñu génn 2020. 2020 waaw est-ce que gis nga limu doomu aadama yi faatu. bari na de ni mu yokkoo. Mhm. ñu jël exemple ci reportage bi nga xamante ni euh, sunu naataango abi fay defaloon nañu ko ci banlieue bi. Mhm. muy cimetière bu euh, Pikine ak bu Yoff. Mhm. ñuy wax limu ñi nga xamante ni denc nañu leen ci cimetière yi. lim bi dafa dem ba dafa doubler tripler at mi weesu. ñu denc leen fa plus de maanaam dinañ plus de. vingt personnes dinañ leen denc par jour. donc plus de quatre mille morts. te loolu yaa ngi noonu sax mi ngi jàll. mi ngi noonu. Mhm. chiffres yi sax bi euh, euh, après xam naa dinañ ci dellusi. Mhm. ndax lii après bu ñu ci yeggee mooy euh, tolluwaayu jàngoro ji ci yenn ci diiwaan yi. dinañ ñu dellusi bu fekkee régime mën nañ ñu may yii ñu dellusiwaat ci tuuti. mais ñooñu faatu. Mhm. est-ce que ñu faatu ñëpp ñu ngi leen di defal test Covid. post mortem la on ne sait pas non mais même même même su su leen Covid reyul directement mm. euh, seen dee boobu sax peut-être mm. que c'est lié waaw euh, c'est lié li ñu effet pangolin bi mën na leen rey parce que feebar bi mu amee tamit sax am na ñoo xam ñu bari dañoo négliger sax feebar bi ñu amee woon mm. ba wala ragal hôpital sax ba toog benn insuffisance rénale bu war benn cardiaque ba waroon na def ay traitement mais mais loolu la wax il a des questions sans réponse que defuñu ñoo ñu faatu defuñu diagnostic pour xool li leen rey. defuñu benn rapprochement. ñu baree ngi faatu ñu ngi leen di denc. te ñi faatu ci 2020 tolluwaay bi moom jéggi na dayoo jéggi dayoo goo xamante ni nii. comme li may wax rek y' a toujours euh, des des des questions sans réponse mënuñu ci tontu. Mm-hmm. waaye yaakaar naa ni euh, li ñuy wax. échantillon la rek. Mm, la ñuy am te te fan euh, bi ñu ngi koy nemmeeku. Mm-hmm. ñu ngi commencé bari. Mm-hmm. mort mort bi. Mm-hmm. mango mort subite mu ñu a on a on était am na ci exactement am na ci ay jamono ci ginnaaw bi feebar bi commencé génn France amoon nañ ko. Euh, bay docteur ni euh, genre emboli embolie pulmonaire la ñuy développé mm-hmm. te loolu moom mooy mm-hmm. tax virus bi su ko attaqué rek doon mort subite fii nag dañ ko commencé nemmeeku fii même ci première vague bi ñu ngi ko doon dégg dangay ngay toog di déglu ñu ne benn pas daanu na tel marché mm-hmm. euh, décédé semaine bi ñu génn nag moom dafa taxar naase dafa taxar naase donc on se demande est-ce que y a pas yoo xamante ne tey jii war nañ ci sëggaat pour que gestion bi gën a jaar yoon parce que man ba léegi nii man dama tiit ndax dama ne li am dëgg dëgg dëgg euh, bis bu ñu ko waxee ñu fëgg suñu gémmiñ donc ñun suñu jëmmi bopp ñun ñoo war a xool fi ñuy ñuy fu ñuy teg sunu tànk. naam autorités yi dañuy guider rek def leen ni def leen ni def leen ni geste barrière mais de ba kañ. Mhm. ba mu tàmbalee ba léegi geste barrière respecté leen ko respecté leen ko teewul kaayam a ngay explosé. Mhm. kon yaakaar naa ne y a un gros travail à faire. Mhm. te du autorités yi kese. te te bu bees bi ñuy wax sax. contagiosité am dafa dafa dafa gaaw tellement que euh, c'est vrai que nañu wéy di def geste barrière ñoom seen. Euh, te li koy wax chiffre. ñu Sénégal ñëpp xam nañ ni échantillonnage la ñuy demee loolu kon pour ñu am chiffre bi na xaw a jafe mais ñaareel bi mooy. Euh, ci euh, wàll yu ñu nekk Fatou Kiné dafa mel ni Sénégal. Mhm. am na ay bërëb yoo xamante ni fa mbas mi gën a laal. waaw am na ay bërëb yoo xamante ne mbas mi euh, gën a law pour wax léegi li nga doon kii mm-hmm. yokk si benn tuuti rek mooy souche boobu ngay wax mm-hmm. ñi ngi ci doon tiit di ci tiit waaye bu yeboo ñu gën ci tiit ndax tey bu Afrique sud Afrique du Sud demee ba am 30 cas mm-hmm. ñun xamuñu fan la ñu jëm donc fii ci Sénégal wax dëgg neex yàlla am na ci ay zone yoo xamante ni tey ñoo gën a sonn nañ ko njëkkee Dakar gii ñu nekk nga xamante ni boo xoolee euh, ndakaaru bu dee mën nañ euh, ñu baaxee chiffre yi doon wane léegi euh, Dakar fi mu ne nii xam ngeen ni fa la yëfi fi la yëfi samp ne nii la gën a samp ndax ñi ngi ci fukki junni ak juróom mm-hmm. yu teg juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci cas donc 15 832 cas mm-hmm. euh, compté nañu ko rek booy xool mm-hmm. euh, ci euh, Ndakaaru mu nekk ay cas yoo voilà les ah, chiffres sont là très bien très bien kon Ndakaaroo goog ak cas am nekk na loo xamante ni vraiment doy na waar bu weesoo Ndakaaru gis nañu cees Thiès également tolluwaay bi euh, jéggi na dayoo ndax fi mu ne nii ñu ngi ci 894 cas région de Thiès rek 52 euh, décès maanaam juróom fukk ak ñaar ñu ñàkk seen bakkan euh, téeméer ak juróom fukk ak juróom benn yoo xamante ni ñu ngi leen di faj à domicile boobu ñuy wax lépp ci diwaanu cees la waaye tamit perte de vue bu ñu leen fàtte ndax am na ñoo xamante ni foofee ca cees dañ leen a testé ñu ñu ne leen ñoo ngi ak moom ñu ne péymet daw yàgg na moom defoon na fi buzz ma ngoog ne ca Thiès fi ne ña ca ñaar fukk ak ñaar mhm. yoo xamante ni xamuñu ay perdu de vue lañu perdu de vue lañu mhm. euh, ci diwaanu Kaolack bu ñu fa yeggee Fatick mhm. euh, lu jógee daanaka euh, juróom-ñeenti téeméer junni ci ay e cas jege na ko juróom-ñeenti téeméer la ñu ñàkk seen bakkan juróom-ñaar fukk la ak ñaar ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñu ngi sous traitement ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett faj nañu leen ba ñu wér euh, ba tey ca kaw Kaolack bu ñu ca desee xayma gi diggante décembre ak janvier rek mm-hmm. lu toll ci juróomi téeméer ci kaa wàññi nañu ko ak juróom fukk ñoo xamante ne nii ñoo ñàkk seen bakkan seen bakkan diggante euh, décembre la ak euh, janvier mm-hmm. dañuy jeexalee ci district district bu Touba Modou Fall district Touba moom it jàppale ni kaa ya fi na mm-hmm. mi ngi ci junni ak téeméer ak ñaar yoo xamante ne wàññi nañ ko fa juróom-ñett ak juróom benn ñoo ñàkk seen bakkan juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñoom ñoo wér euh, ca diwaanu euh, Touba euh, Fati di jeexale ak lu am solo muy nappel ngalawaay nañu ko nañ fexe rek ba matale ko il faut que vraiment geste barrière yi nañ ko gën a fonk mm-hmm. ndax kilifa yi bu ñu naan fonk leen geste barrière yi ñun ñi ñoom taxuñu mm-hmm. ñun taxuñu mm-hmm. Sénégal gépp a tax ñun ñëpp a tax waaye tamit nañu gën a dooleel li ñu naan l'engagement communautaire askan bi il faut que ñu dugal seen loxo ci xeex bi man loolu mooy li nga xamante ni moom laay mujjee lancé. Euh, mm. Fatou ah, Cheikh rapidement ñu dem ñaan yàlla ñaan yàlla rek am vaccin yu baax. Mm, euh, amiin parce que Israël maa ngi liir ñu naan euh, seen taux de mortalité dafa wàññeeku de 60 pour cent. Mm-hmm. te ñu ne nag effet vaccin bi la waaw ah, ñaan yàlla rek yëf yi jëm kanam. parce que lii moom ni mu situation bi ni mu demee nii moom. Mm, mm. Euh, je pense que vaccin rek efficace moo moo ci mën dara moo ci mën a jàppale. jërëjëf euh, sunu gox li nga indi amatina solo ñu lay jaajëfal bu baax a baax. gis naa sax ci euh, sànq ci Moxtaar la mi ngi naan nijaayu gox yi mais ñun nañ faral suñu bàjjenu gox parce que xam naa ne mbas mi moo moo tax rek mais kon dama la doon jóg ne la addu jingoo parce que vraiment ni nga koy defee saa su nekk macha allah. Ah, amatina solo ah. yow Modou est-ce que sa approche engagement communautaire ah, yaa ngi taxawal waaw nijaay gox lañ man bàyyi ma faral ngi sensibiliser jaaw mu dëkk moom mu ngi sensibiliser ci balcon bi nag lay taxaw hmm. <laughs> bàjjanu gox yaa ko yor merci beaucoup Fatimé amati na solo tu restes avec nous ñu dalal Dissa Préra ci agroécologie